Abrazo, Fe. la waaw. mais li leen di ñëpp di laa lay laaj. waaw ñëpp nee nañu yéen a ngi door a dugg ci mbër kaamil nag. duuma ta dafa doon suñu waay bu ñu amee combat mu ñuy conseillé di ci jàpp lamb ji mbër bu lekk avance am nga combat. Quench bu jàppee ne moom mun mu ngi nax boppam. bii moo raw. non loolu du ci dara ngeen combat bii yu du combat yi ngeen passé. non loolu du ci dara gi nga lamb ji bu doon loolu Balla Gaye du bëre Yékini ba daan ko double moteur booy bu ndaw la fonk ñëpp di jàppale ñëpp. barke ku daan Paul Maurice. match ñuul jën kay rek. mais mais non daan Papis général. Quench mu ngi doog a bëri grand combat. musul bëri ay grand combat ay officiel lay bëri mu ngi doog a bëri grand noonu du ci làmb ji maanaam gars mooy wax rek ci basé wu Quench ëppul gars galaj ëppul gars doole yóbbu fi mbër top 5 ba tey daan ñëpp da ëpp doole ñun lamba lañ lay wax Quench ñu mu daan ñëpp dana na ëpp doole yóbbu fi mbër top 5 ba tey Double Moteur def ay jaloore du Quench bu amee 50 supporters Double am na 60 supporters damay bëgg a xam ne waa Bargny bu ñu yaakaar ne yomb ñuy nax ñoom te bu neexee yàlla Double Moteur dañ koy ñaanal mu dóor yàlla Quench mu daan da ngeen defe yomb si yéen ah non da dara yomb ñun xam nañ dara yomb waaye moom moom si moom mi am na combat musul am combat da waaye mi ngi doog am combat yow tamit dañu xam lépp dëgg la. doomu Rebeus baa ngi nii ci Atou Rebeus. aywa xawoo tiit tuuti ci combat bi ngay reetaan nii. ñu reetaanu ku tiit ngay ree. ñu ne ba leen dëgg amul leneen lu ñuy ragal suñu àdduna loolu bu ñuy ree xamal ne mbétte la ñuy ree. mais gëm ngeen ne am ngeen combat. loolu moom da ngeen koy nangu. am nañ combat. cointre na na jël lépp mooy favori na jël lépp mais bu ñu dajee barrière ba diri daal yi gaa yi xam ne làmb xale moo koy def tan ñun làmbantuñu dañoo ñëw pour làmb combat bi cofuñ ko de dañ ko wër teesuñ fukki loxo. yéen a ngi door a daj de. déggoo ma de. yéen a ngi door a daj. Quench mi ngi soog a bëre grand combat ba mu dalee bëre ba tey combat bi dañoo intéressé waruñu koo ñàkk ma dañu ñaan yàlla may ñu ndam. waaw di ne Double Moteur yàlla na ko yàlla may ndam dimanche incha allah ñu fi la da may conseil uh-huh. borom baax la waaw uh-huh. ah, di nga ñaanal yàlla ndam rek. xalaat nga ko combat combat ak Quench gaawee comme ni sa combat gaawee démb. incha allah rabi champion la jàmbaar la suñu grand la dañuy conseil bu baax incha allah. waaw dañuy sant yàlla rek bàyyiwuñu xel sax dugg ci écurie duggaat fa bàyyiwuñu sax xel loolu ñun Dakar Plateau lañ dëkk si taan bi lañ dëkk kon suñuy adversaire ñoo nekk ci banlieue bi ñuy bëreeg ñoom moo tax du ñu bàyyi xel sax ay dugg ci écurie génnaat fa dugg fa suñuy adversaire ñoo fa nekk ñuy bëreeg ñoom rek waaw lam moo ñu boole ñoom ñu war a bëreeg ñoom parce ñun waa côté bi du ñu bëri suñu biir parce boo ñëwee jóoban président gis nga ñu nekk gis nga fi xam nga gis nga fi ndakaaru Dakar ba Cap Manuel gis nga fi ñëpp tey kon loolu moo tax ñun bu ñu bëre suñu biir ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kon waa banlieue bi rek lañ mën a bëreel loolu moo waral tey jii nii tamit fu ñu dugg rek mën nañ fa duggaat loolu kese la. keroog ci signature bi ci biir Bantamba bi da nga ne combat bi di nga am dina dina am xeex dina am bëri est-ce que mën nañ xaar loolu. waaw loolu lu leer la li ma waxoon laay waxaan rek ñun ay ndaw lañ préparé nañ li ñu war a pare liggéey nañ li ñu war a liggéey. amaana li ñu pare pare wuñu sax pour euh, combat bi pare sax pour combat bi nii li ñu liggéey du sax pour combat bi nii xëy na adversaire la boo xam ne làmb moo ñu boole ñu war a bëri rek ne naa ko wax ji du mu bëri sama diggante ak moom mu ngi génn ci site internet yi nag di wax boobu ba léegi kenn gisuma fenn wax ji du bari lenn laa seex moom mooy dimanche la set arbitre sifflé ma duma ko daan ko double man bu fekkoon dara am naa lu ma lay ak dégloo ak dégloo ak ak dégloo ak dégloo ak dégloo. ak dégloo ak dégloo si woo si woo si woo may leen di bàyyi. dugub man sama question lenn la mbër moo xam ne maanaam da ngeen di bëri maanaam moo la jiitu si làmb depuis 2009 mu ngi jëw nga ñëw 2015 am na ñu bëri ne nañ dafa retard moo tax jël la ñenn ñi di wax ne moo la dàq bëri. yow keroog seetaan nga ko ma laaj la nga ne waxi dof lay wax ndax waxi dof jooju muy wax saa veut dire que kon da jàpp ne moom bëre boobu ñu koy ji wala mu jàpp ne yow yoon woo maanaam adversaire bu nga boo xam ne day jaaw day jaar jàll waaw Babacar wax nga wax ji waaw làmb gëm-gëm la te ñun dañoo gëm suñu bopp moom 2009 la dugg si làmb ñun 2015 lañu dugg si làmb ñu ngi béy suñu waar yaa ngi dégg ko fekk si yoon bi dañ koy pousse continuer suñu yoon amuñu dara lu ñu si moom wala lu ñu xel ñaar si moom waaw loolu kese la mais est-ce que pousse Quench yomb na parce que Quench mbër la mi nga xam ne bëre moom danañ mën na ko lool yaa ngi am na ñoo xam ne sax jàpp nañ ne bu ngeen jaxasoo ci wàllu bëre Double Moteur mën na mën na am ay jafe-jafe est-ce que loolu yaa ngi ci bu jëfee suñu ñu teg suñu ngeen bu bàyyi bëre parce que dafa am suñu teg suñu bëre wax naa la ko sànq si biir wax Babacar booba léegi moom mi ngi génn di wax gisoo ñu fenn ñu génn di wax daam am fu ñu teg suñu bët wallaahi azim du ñu tëdd sax boo koy xalaat wala ñu koy sikki sàkk moom te la set yaagatul la set lay leer incha allah rabbi koy ñaanal jàmm nag ñaanal ko suñu bopp ba la set incha allah. combat bi lan moo maanaam combat bi lan moo koy gagné lan mooy gagné combat bi est-ce que Double tamit xam na niveau combat bi muy bëre maanaam niveau bi combat bi fan la ko mën a yóbbu combat bi. waaw xam nañ ko bu baax xam nga moo tax préparation bi sax bokkul ak yeneen préparation yi ndax combat ku ne xam na ne na def na at ak tegu presque deux ans ñu daj si ay sacrifice nag laqatu sunu ruux da si ay coono. def ci xaalis bëree bëri ñu ci profité tamit di ci santaale ku ci mel ni Abdoulaye borom Somone parce que tamit diiran bi ñu nekk foofu noonu yëpp mu ngi ñuy taxawu lépp lu war si ñun manqué wuñu nekk technicien ay conditions yi bien di yëkkati xaalis weex taal di ko def si ñun ak maire Somone bi Bokar Sadj xam nga ak ku ci mel ni tey jii nii euh, Cheikh Fall aluminium double nekk Somone mais moom me na da nga dem ba Somone dëkkam da ngaa ñëw ba dëkkam làkkatu fa waaw loolu lay wax la rek fii làmb ñëpp xamante fii ñëpp man li ma xam bari ñu ko wax yaa ngi dégg parce que làmb ñëpp a xamante yooyu amul sens somoon ay nit laa fam yu baax yu may jàppale taxaw ma ma gis nit ma taxaw ci combat bi jàppale ma ma leen di woo nag ci combat bi aussi tamit ku ci mel ni seen monsieur le maire ku ci mel ni Cheikh Balal mi ñoom ku ci mel ni euh, kii euh, li mu transfert. waaw ngay xam nga ni ki ngay bëreel kat la est-ce que bàyyi xel xeex bi. waaw pare nañ ci lépp ñun liggéey nañ lépp lu ñu war a liggéey ci côté xeex bi ñu côté bëre bi pare nañ amuñ dara lu ñuy sikki sàkk ci moom ñun laajuñu ko dara leen lañ koy laaj mooy na dëggal boobam taxaw loolu kese lañ ko sant ci combat bi sax ñu ko leneen. Quench nee na Quench nee na gaay ma ñëw Quench nee na mobilisé na 40 car 40 car la mobilisé yu war a jóge Bargny nee na yu war a jóge Tëngéej ñëwagul est ce que loolu yaa ngi koy bàyyi xel Rebeuss nga bàyyi xel loolu. waaw loolu noonu liñ ciy wax du bëri parce que suñu papa Abdou Khadir Gaye gi nii moom dañ koy sant di ko gërëm yaa ngi dégg futur mu ngi nii taxaw yaa tey ku ci mel ne ay Baba Touré ku ci mel ne suñu Papa Diop si boo nee la fekk baax ñoom nag benn message boo xamante ne daf ñu metti ñun ay doomu Dakar Plateau lañ ay doomu dëkk bi lañ nekk fii ci gox bi suñu maire Alioune Ndoye bëri naa onze combat musuma may cent franc waaw loolu dama koy wax mu koy dégg wax naa ko moom na mu koy dégg jàkkaarloo naa moom wax ko mu koy dégg mu ne ma dina ma jox rendez am ñu ma boole si ay nitam ma leen di woo mais dañ may dawal fem dama du ma topp ci ginnaaw kenn di martaatu kenn dañoo nekk Dakar Plateau juróom bi yaroo bi màggee bi ñu nekk ay doomu gox bi nekk ay porteur de voix mën ci réew mi dara kon ñun suñu jugee ñoom dañu war a dooleel ñoom dañu war a dooleel yaa ngi dégg ñoom dañu war a dooleel mais gisuñu sunu bopp si maire bi Aliou Ndoye man gisuma sama bopp ci moom yee loolu dama koy message la nag bu may laata pour mu dégg ko su ma jàppale dama war a jàppale su ma jàppale dama war a jàppale doomu dëgg bi laa yee ñii nag di ma jàppale ñii ma jàppale du ma leen yemal ak lenn ñi may jàppale tey jii du ma leen yemal ak lenn ku ci mel ni mii ku ci mel ni ministre Mame Mbaye Niang di nga ñëw ci waaw euh, double double waaw El Hadj Keita ñëw na mais dama bëgg nga déglu sama question waaw tey tey jii yaa ngi war a bëri ki ma ne mooy Quench mais tey est-ce que sañ nga xeex ak Quench wala sañ nga koo jëli waaw dégg nga li ma wax loolu dama ci ñëwaat rek combat booy dem da ngay waaj lépp da waaj nañ lépp lu ñu war a waaj muy xeex muy bëre muy lépp lu mu laaj rek ñu def ko incha allah en tout cas ñun sax ko dara lépp lu koy am def ñun ñooy xale bu bëswaa ñun ñooy diriger lépp lu koy am ñun ñoo koy def waaw eh, eh, eh, ñu lay laaj gars yi bisimilah ñu ah. ko mën. waaw da nga loolu ñaanuñu ko yàlla. loolu ñaanuñu ko yàlla. loolu ñaanuñu ko yàlla ñun ay xale te xale du tuub ñaari yoon. Eh, waaw loolu nag lu mënul woon ñàkk la suñu waaw fàtte nañ ko ba ba léegi ñuy nekk suñu yoon di bay suñu waara te am naa yaakaar ne tamit màgg nañ ci làmb bu dee as tuut ndax am na ñu nekk suñu ginnaaw ñoo xamante tey tamit doyloo nañ leen te ñu ngi ñuy teg si code kon am nañ yaakaar bu baax a baax a baax ni loolu dootuñu daal incha allah rabbi. mais ci noonu la sax doomu nday ñëwee El Hadj ngi nii waaw may profité di ko sant El Hadj ah, waaw muy doomu Médina ah, waaw di Neymar de la musique sénégalaise nekk nit ku baax di sama waay di ma jàppale ku ma yàgg taxaw di ma jàppale di ma defal lu nekk di doomu Medina di doomu Ndakaaru doomu àdduna ñu koy ñaanal may kontaan ci moom bu baax a baax a baax di ko sant di ko gërëm. El Hadj lu waral teewaay bi tey. waaw salaamaaleykum ah, lii sama teewaay Double Moteur sama xarit la yàlla dafa def man ak moom depuis ba mu nekkee Double Moteur ba léegi dañuy jokkoo dañuy woowante téléphone dañuy waxtaan téléphone saa yu amee combat daf ma koy wax. man tamit lu may def da ci dugal loxoom moo tax tey ma teew fi pour dooleel ko wax ko ni El Hadj ci ginnaaw double moteur yàlla na ko yàlla may ndam jaajëf. loo koy wayal loo koy wayal loo koy loo koy may. kuy bëree da daan. waaw bëre leen wala dëgg sama ndaanaan baa ngi nii dugul moteur bakk naa la jiñ naa la doomi garmi di ñeme jam jam wala dëgg sama champion wóolu naa la may ndam jaajëf amiin waay amiin eh, waa double dernier mot lan ngay tàggoo waaw dañuy profité tamit di sant suñu président Saliou Diop ñu koy sant bu baax gis nañ taxawaayam waaw di sant sëñ Sidi Mbacke alxuraan bu baax a baax borom jàmm gën si baaw sañ sëñ Mbaye Wade alxuraan ñu koy sant bu baax a baax a baax borom yàllaay kese gis nañ taxawaayam waaw xam nga di sant tamit ku ñu mel ne sëñ Fallou Maraxew di sant sëñ Abdou Karim borom Bakari Malaw laa ñu koy sant bu baax di sant suñu sëriñ maam Thierno Mbacke Imaam maam Thierno Mbacke Imaam ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm yaa ngi dégg maam Thierno Mbacke Imaam ñu ngi koy sant bu baax baax di ko gërëm suñu sëriñ suñu yaakaar tey ak ëllëg di sant borom Daaral Mukti Babou Laye Babou Diatta ñu ngi koy sant bu baax gis nañ ñaanee gis nañ taxaw bi waaw xam nga di sant tamit di sant tamit Babou Touré parce que mu jàppee ba tey baawul ñu koy sant bu baax a baax a baax bëgg nañ mu sant si tuuti kàddu parce que moom moo fi teewul suñu papa Diop si te bu nga xam ne ne Diop si mooy suñu lépp kon bu fi teewee tey ñii nii ba du Diop si lañ koy xoolee bëgg nañ tamit ñu may ko mu sant kàddu tuuti waaw.